ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci IYAT TV ñu dalalaat leen ci xibaar ñu wax ci lu ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, Nations Unies ñi nga xam ne jamono jii euh, ñu ngi nekk di ŋàññi kii di président Macky Sall ci leen ci doxalin euh, bi nga xam ne mi ngi koy doxee rawatina injustice bu métti bi nga xam ne mi ngi koy tege ci jamono ji wante itam ñu ngi koy surveiller ci li nga xamante ne si ne noonu lay doxee waaye itam ñu teg ko lool nag. li nga xam ne daal dina ci feeñaat bees moom mooy euh, arrêté gi nga xam ne daal dinañ koy arrêté kii di euh, Bassirou Diomaye Faye moom nag ginnaaw ba nga xam ne euh, arrêté nañ ko ñu bëree bëri ñi ngi wax ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Nations Unies daal dinañ ci réagir waaye itam di ci addu ñu bëree bëri ci ay programme international di ci ci mbootaay yi nga xam si ne ñoom ñoo li nga xam ne moom moo di international daal dinañ ci addu ñenn ñi di ko naqarlu ci arrestation yu bëri yi nga xam ne daal dinañ ko fi nemmiku ci jamono ji euh, loolu nag ñu bëree bëri di wax ne kii di Bassirou Diomaye Faye ni nga xam ne euh, noonu lañ ko arrêté nekkut ab arrestation waaye ab euh, kidnapping la waaye itam dañoo salfaañ ay liberté waaye itam liberté sénégalais yi nga xamante ne si la doon liggéeyal ndaxte fi nga xam ne fa lañ ko jàppee administration la boo xam ne sénégalais yëpp ñoom ñoo fa bokk yam waaye itam Eh, kii di Bassirou Diomaye fay di fa liggéey di fa daane doole waaye itam eh, di liggéey ci turu sénégalais yi ndaxte kat bërëb boobu kat dafa eh, war a am respect ndaxte public bi yëpp ñoom ñoo ko bokkee rawatina loo xam ne image yëpp di défilé ci li nga xam ne moom moo di partout dans le monde waaye itam nit ñëpp di ci teg seen bët loolu nag nekk na loo xam ne ay programme yu bëri bëri ci bitim réew ñu ngi koy ñaawlu ci situation yoo xam ne euh, daal nay am fii ci réewum Sénégal te dara waralu ko lu politique ak kii di mag Macky Sall loolu nag nekk loo xam ne Eh, ñii di Nations Unies jamono yu nekk ñu ngi alerter eh, lii di gouvernement bu président Macky Sall ak eh, doxin wi nga xam ne ñi ngi koy faral di doxe ak li nga xamante ne seene mi ngi am ci réew mi mu nekk ay jaxasoo yu bëree bëri ak li nga xamante ne seene moo di injustice boo xam ne ak violence bu bëri boo xam ne Euh, ñu ngi koy constaté ci jamono ji nekk bii rek moom moo ci mujj ci euh, li nga xamante ne si ne daal dal kii di Bassirou Diomaye fay lool nag nekk loo xam ne euh, ñu bëree bëri ñu ngi ciy réagir di ci àddu ci jamono bu nekk ñu jeexalee ko ci ki nga xam ne moom moo di Birame Souleye Diop moom nag daal àddu di avertir ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall mooy xam ne nekkat kii di président Macky Sall li nga xam ne mu ngi koy bëgg ci jamono ji duñ ko bàyyi benn yoon mu daal di continuer ndaxte ab forcing la bëgg waaye itam daal di jël li nga xam ne moo di justice mu nekk loo xam ne euh, moo koy seggal euh, li nga xam seeni moom moo di euh, parrainage boo xam ne moom la fi bëgg a indi ci beneen système waaye itam jaarale ko ci justice nga ñuy lànkal ñi nga xam ne ñoom ñoo di seeni candidature yi nga xamante ne si ne jàpp nañ nekkat buñ demee ci ay mën nañ ci am li nga xamante ne si ne moo di mbetteel ñu daal leen ci jaarale ci justice waaye nag euh, duñ ko nangu benn yoon ndaxte kat appel bi nga xam ne euh, kii di Mame Mbaye def na ko jublu ci dara lu euh, daal di fexe kat bañ neenal lii di candidature bu Ousmane Sonko waaye ñoom dinañ taxaw takku waaye itam Euh, duñ ko nangu benn yoon kii di président mag Macky Sall di leen tànnal lu ñu def waaye itam euh, di leen tànnal seenu candidat duñ ko nangu benn yoon ndaxte kat ñoom euh, benn candidat lañ am ci élection présidentielle yu 2024 ndaxte kat ñoom seen objectif moom moo di fexe ba kii di président Ousmane Sonko bañ a bokk ci élection wër-wërloo bi nga xam ne ñu ngi koy def di renvoi li nga xam seen moo di procès bi loolu lépp kat fexe kat ba nelawal sénégalais li nga xam ne Euh, moom moo di liberté Ousmane Sonko ci euh, wàllu candidature am loolu nag nekk loo xam ne euh, kii di Birame Souleye Diop àdduna ci waaye itam daal di naqarloo ñi nga xamante ne ñi ngi leen di jàpp ñu bokkee ci fi nga xam ne moom moo di Pastef ñu toll ci cinq cent personnes ci jamono ji jàpp six cent wante itam bi ci mujj muy Bassirou Diomaye fay moom nag muy xam ne nekkat jàpp gi dañ koo kidnappé waaye itam Euh, war nañu jël ab dogalu bàyyi ko mu dellu ci fameem ndaxte kat euh, Bassirou Diomaye Faye waxu fi lu keneen waxu ndaxte euh, lépp loo xam ne kat posté na ko wala mu wax ko fekk na ñu bëri daal dinañ ci àddu woon lool nag nekk loo xam ne kii di Birame su Diop daal dina koy wax mu nekk loo xam ne mbir mu doy doy bu war la ci jamono ji wala mbokk ñu doon jox dig dajee ci yeneen xibaar leen wax na ngeen abonné te activer cloche de notification bi pour bépp vidéo bu dugal ngeen bokk ci koy njëkk jot